yéen a ngi teewlu seen seen réew mi 24 TV. maaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen sant maa ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen wax man Jéegi Jóob doomu Jeewo Jàllo doomu Xalifa Jóob dëkk Ndar fii ci Dakar dëkk Kër Njaay Jóob gis naa loo xamante ne convocation xaw ma mandat dara xaw ma lu mu doon ñu de damaa daw daw ma maa ngi fii toog sama kër ak sama njaboot ak sama borom kër du ma daw du ma daay du ma làqatu Sonko ak Jomaay buñ ma soxlaa xam nañ fan laa nekk te doowu ma puusu ndax defuma lu tax may daw defuma lu tax may làqatu defuma lu tax may ragal dama bëgg àdduna yëpp dégg ko xam xoqatal bi ñi ñu doon wax si ñoom dëgg la te ñi ngi si te ñoom delluwuñ ci ginnaaw te billahi lazi laa ilaha illa huwa delluwuma ci ginnaaw te ragaluma maa ngi sama kër daw ma fenn maa ngi biir Sénégal gii naka àdduna yëpp dégg ñu xam ni dawuma li ñu bind ni ñi may ci frontière yi ni joxe nañ ma convocation ni nañ ma jàpp dawuma maa ngi fii lu ñu bëgg nañ ko def waaye sama conviction première